mais loolu mooy dëgg gi waxtaan boobu mm-hmm. euh, lan la ci Ousmane Sonko di gagné lan la ci Macky Sall gagné. waxtaan woo gis ci politique ku ne dafa am loo ciy sàkku Macky Sall bi mu bëggee ba bëgg a fomb élection yi. soxla woon na ñaar bañ koo xeex ci loolu soxla woon na Ousmane Sonko bañ ko xeex ci loolu soxla woon na Karim Wade bañ koo xeex ci loolu Macky sàll dafa diriger nguur pandant douze ans boo diriger nguur pandant douze ans da ngay am loo xam ni danga koy soxla boo génnee ci nguur parce que nguur moo demee noonu Ousmane Sonko mi ngi ci kaso moom. moom dafa bëgg a génn et c'est normal mu bëgg a génn Ousmane Sonko dafa def combat boo xam ne da cee rey boppam lu ne mu daj ko ci ñu nekk ci processus boo xam ne dañ ko exclure moom nar def élection yi sans moom mu war a génn di def élection yi sans moom supposé que Bassirou Diomaye Faye gagné bu Bassirou Diomaye fay gañe mu war a ñëw ci benn cérémonie protocolaire mu ñëw dugg ñu ne ko noo taxawal taxawal taxawal yaa la président qui passe ba Basiru <laughs> ñëw dugg ba pare ba Basiru dugg ba pare Basiru dugg ñu ni ko lève-toi mu jóg taxaw yaa ngi dégg mu jóg taxaw ba Basiru toog ba pare muy soog a toog looloo nar a xew est-ce que dégg baax li ma la est que dégg nga baax li ma la bëgg a wax. dégg naa bu baax li nga wax. ba pare Ousmane Sonko Macky Sall génne ko ak Bassirou Diomaye fay génne ko du benn makki Sall génne ko moo gën ci avenir politique am Bassirou Diomaye Faye génne ko bokkuñu donc Ousmane Sonko intérêt yi am pour négocier dafa bari c'est ça la réalité voilà. Macky sàll nag est-ce que génne Ousmane Sonko. Euh, est-ce que ça fait l'affaire euh, de son de son camp est-ce que Macky Sall jéego yi muy dox euh, ngir dugal Karim Wade dugal Ousmane Sonko est-ce que narul affaiblir euh, son camp réduire leur chance euh, de s'en sortir pour cette élection Macky Sall génne Ousmane Sonko ci loi d'amnistie baaxul ci Ousmane Sonko baaxul ci Macky Sall baaxul ci réew mi dégg ma dama ni Macky Sall def loi d'amnistie génne Ousmane Sonko baaxul ci Macky Sall baaxul ci Ousmane Sonko baaxul ci réew mi li tax baaxul ci Macky Sall mooy day firndeel ni Macky Sall lim takkaloon Ousmane sonk yëpp tëj ko kaso lépp ay tappale la et que donc genre dictateur yooyu bu fi nekkoon jël opposant dugal ko kaso nii ci naxata kannal benn loolu baaxul ci Macky mu ñëw jaar ci amnistie génn ci kaso bi baaxul ci crédibilité moom en tant qu'homme politique tax baaxul ci réew mi mooy nga accuser nit de terrorisme accusé ko association de malfaiteurs en relation avec entreprise terroriste ci affaire boo xam ne ay milliards ñoo ci yàqu ay ay fukki fukki fukki nit dee ci nga xëy suba ni justice bi génneel kii mais comme si dara mosul xew mais loolu discrédit non defal nag defal nag discrédit boobu ci institution justice judiciaire u Sénégal loolu fan la jëm le procureur de la République ak le procureur général ñëw jël seen ay dossier def conférence de presse articuler ay accusations génne ay preuves wone affaire yi teg ko ci table ji xëy suba ñu ne dara mosul xew loolu baaxul ci Macky Sall baaxul ci Ousmane Sonko baaxul ci justice Sénégal baaxul ci crédibilité république du Sénégal dara baaxul ci loolu dara amul lu ci baax alors